alors euh, ci jamono ji ñuy wax ay 16 euh, jours d' activisme réalisatrice sénégalaise bi di Angèle jaban moom dafa jël euh, téere bu Mariama Ba une si longue lettre bëgg ci inspiré wu def ko ci cinéma bi ci loolu nag Ibou Diouf kon dem na xool ak Pape Sangone Mbaye am na yenn séquence yoo xam ne ñu ngi ko tourné sax fële ca Ndaayaan ak Popenguine dañ ci ànd ak Ibou juuf kon ci reportage téere bi ngeen di gis moom la ñuy duppee une si longue lettre bokk na ci téere yi nga xamante ne gën nañ ko liir ci àdduna wërngël këpp ci xayma yi ñu mujjee jot nee nañ jot nañ ko traduire ci lu toll ci fukki langue ak juróom-ñaar am na sax ay yeneen projet yuñ ci toftal. ma ma jël film Mariama Ba pour euh, def ko film mooy que ne dama seetlu que ne xale yi bëggatuñu liir mag yi sax amatuñu jotu liir ma xalaat ne su ma jëlee livre bu mag bi nga xam ne ñëpp dañ koy jàng ci école. adapté ko film dina tax ñëpp seetaan ko te sama objectif mooy que ne bu nit ñi seetaanee li film bi bu fekkee ne am na ñaar ñetti nit ñu ne xaaral ma dellu jëndaat libre bi lire ko rek j'aurais gagné mon pari c'est de réconcilier les gens avec la lecture avec la littérature. loolee waral réalisatrice bi di Angèle Diaba gis ne jamono ji cinéma bi mën na tax ñu mën a lire wala sax saytu li nga xamante ne jot nañ ko bind moo waral mu fas ko yéene. def ci ab film. ben acteurs yi ci joué am na euh, trente yi joué ci film bi kenn rek moo ci nekk gabonais kon je pense que ne préférence nationale bi am na bu baax. donc ñu def casting mënuñu trouver fii Sénégal ki nga xam ne pour rôle boobu mën na làkk français euh, ak joué ko. ñun nuñ ko buggee woon ñu ouvrir casting bi international africain pour ñu mën a am ci benn rôle boobu desoon keneen ku ko mën a jouer niñ ko bëggoon mu jouer. si longue lettre di classique bu littérature sénégalaise. buñ ci amalee film gis ne ay ngeneen lay doon rawatina ñiy safu wàllu littérature waaye tamit cinéphile yi loolu sox mu waraloon jëwriñ bi ñu dank lépp lu aju ci wàllu cosaan ak aada demoon ci seen plateau tournage te popo ngir ndaayaan ngir saytu liggéey bi bu baax a baax. léegi jumtuwaay yi ngay fexe ba mu yegg ci moom yooyu dangay ngay aussi àdduna lu muy doxee nit ñi liñ bëgg nekk ca bu wane da koy sopp ba mu pare nga doo def ak ñoom di nga waaj ba doo def da leen fekk ca liñ bëgg. di soppeek ñoom ndànk-ndànk kërital leen ci leen li nga xam ne gëm nga ne mooy yu gën a baax li am solo mooy bataaxal ba nekk ci téere ba naka lay duggee ci xol ak xelu xale yi ak mag bu nekkee ne cinéma wala théâtre da koy fësal bañ ba yegg ca ñoom da bataaxal bu dugg ci ñoom rek yegg ci ne nag lim ci jublu mooy fexe rek ba liggéey bi nga xamante ne ndem si yàlla bii di Mariama Ba jotoon na ko ci amal wéyal ko ci yeneen anam. personnage principal bi di Ramatoulaye di héroïne roman bu Mariama Ba donte nag am nay séquences yoo xam ne foofu mu am lu ci soppeeku ñu ne jamono waral li ni mel waaye li ci ëpp. li ñu dexal ci téere bi lay doon. waaw fi ñu tourné film bi mooy Thiès parce que pour am kër yu mag yi nga xam ne Mariama Ba doon na ko décrire ci livre amatul Dakar parce que ñëpp dañuy toj seen kër yi di ko tabax di ko tabaxaat ba amatul kuur donc Thiès nga mën a am kër yu nga xam ne dafa am ëtt bu mag am ay garab ci biir te loolu c'était important pour nous ñu conserver ko parce que loolu la Mariama Ba bind loolu moo tax ñu ñëw Thiès Popenguine yenn scènes yi ñu mun ko def Dakar donc voilà. dafa nekk loo xam ne ni day wane mandargam réew day wane ni xam nga réew bu amul jàmm mënoo faa mënoo faa génn film fi nga mën a defee film mooy fi nga xamee nii mën ngaa filmer fu la neex te li koy li koy gën a firndeel mooy ñu ci bari léegi ñu ngi ñëw di tourner Sénégal parce que li xew ci suñu sous région bi mooy loolu am na réew yu bari yoo xamee ni bëgguma leen si mais am na réew yu bari yoo xamee ni léegi kenn mënutu faa tourner mais ñun nag loolu dañ ko dañ cee war a jàpp mooy ci muy jàmm ji ñu am. 9 laa def ba ba léegi bi ma koy togg xaalis di xaalis ba yàlla def état bi dimbale ma ñu commencé ko léegi nag dañuy xaar état bi may ñu ñu yeggali ko. Euh, cinq semaines cinq semaines waaye cinq semaines non une semaine waaw merci beaucoup. une si longue lettre ñu fas ci yéen def ab long métrage loolu rek am na koppar bu bëri boo xam ne jot na ci dugg am na tamit lu toll ci téeméeri million nga ak juróom fukk yi ñu ci dugal te taxul mu noppi ba léegi. merci beaucoup euh, Ibou Diouf Ibou Diouf une si longue lettre ñun euh, génération yi xam nañ ko ci wàllu théâtre mais adapté ko euh, cinéma mu nekk loo xam ne ce sera beaucoup plus accessible au grand public maanaam wasaare ko mhm. au delà même du Sénégal ni livre bi dajee àdduna ci condition jigéen waaw loolu loolu dëgg la soxna naata boo xoolee livre bi ni ñu ko waxee léegi mhm. bëri na ci ay langues yoo xamante ne Euh, jot nañ ko ci traduire. Mhm. bëri na tamit bibliothèque yooyu dem ci biir àdduna bi tey boo ko laajtee ñu jox la ko. Mhm. loolu di wane rek euh, firndeel wala sax di wane rek. Euh, dayo bi nga xamante ne mhm. liggéeyu ndem si yàlla Mariama Ba amal na ko. bëri na nag ñu dët ay travaux universitaires ni ki mel ni ay ay mémoire wala sax ay thèse donc euh, Angèle bu ñëwee wéyal liggéey jaarale ko ci cinéma noonu dafa bëgg a réconcilier public bi avec la lecture mais jaarale ko ci cinéma. Mhm. gis nañ ne tey Mariama Ba euh, livre am bi boo ko dëxëñee ci ab film boo ko seetaanee comme long métrage la une heure trente minutes di nga mën a comprendre loo xamante ne xëy na ki seetaan film bi. noonu la ko euh, amee peut-être euh, li mu ci yokk rek moom nee na. Mhm. parce que ñoom bi ñuy bi ñuy bi ñuy euh, adapté film bi dañu jël référence année 2000 ci jamonoy alternance. Mhm. donc am na séquence yoo xamante ne. du naka Mariama Ba gisee woon. c'est ça mhm. mais da ko méngale ak jamono. parce que tamit booy adapté. d'habitude noonu la sax livre bi dafay xaw a dafay xaw am différence ak adaptation cinématographique euh, parce que tu vois que la condition féminine. Mhm. bëri na ci loo xamante ne ñu ngi ciy wax mais à l'époque ñu ngi ko doon wax léegi amuloon ay féministe wala taxawaay wala dayo bi ñu am léegi amuñu ko woon. c'est ça yooyu yëpp c'est des aspects yoo xam ne dañ cee jël en mhm. pour dire genre initiative yi lu ñu war a la. yu yu am succès planétaire donc war nañ mën a fexe cinéphile yi tamit. Mhm. am peut-être tayal a lire tuuti mën a am. vraiment une idée de ce qui a été produit c'est ça merci beaucoup ah, euh, merci Ibou ci euh, focus bi jërëjëf merci léegi dañuy jàll ci euh, page de pub ginnaaw si ñu dalal Souleymane Niang ci jàngat bi